soxna si bëgg rek nga fàttali ñu tur bi. Ya si. Jami dëkk fii ci quartier Somme. waaw ya njaxate. Eh, li fi xew nag moom mooy eh, da ngeen jékki-jékki rek gis seen kër gi. di tàkk di tàkk waaw nga ñëwaat ci. dañoo jékki-jékki daal kër gi di xamuñu lu ko taal. ñi naan rab la naan ñun xamuñu lu ko taal. sama rakk bi fi mu demoon nee na am lu ñu ci dara. da ngeen jékki-jékki daal gis ni muy. tàkk muy tàkk bu ñu toogee bu ñu léegi rek bi ñu toogee ci mbedd mi rek taalaat na ëmb bee ëmb bee ci kaw fauteuil bi. taal na ko mu nekk ab phénomène bu doy waar. waaw euh, phénomène bu doy waar kay kenn xamul lan la. kenn xamul lan la dañuy jékki-jékki rek gis ay xaatimu alxuraan ci suuf. ak yeneen ñu bëgg nga wax loolu lu mu demee. loolu xamuñu lu mu demee dañoo xëy rek gis ko fii ci kaw mool bi nii dañoo xëy rek gis ko. da gis ko. mais li nga xamante ne moom mooy mooy kër gi lépp lakk na. waaw bàyyiwul benn néeg yaa ngi lakk waaw. <laughs> bàyyiwul benn néeg. Mhm. néeg yëpp doon tàkk. néeg yëpp doon tàkk. néeg yëpp sama néeg moo njëkke mhm. Mhm. moo njëkke tàkk am ñu jël mu tàkk foofu. kër gi ñu dendal. sam rawale bagage yi. waaw dañ ko doon rawale foofu. léegi sa sama doom rakk bi di nelaw sama rakk bi tëral ko foofu. fi mu ko tëddaloon ci fauteuil bi muy tàkk. muy tàkk waaw. mu nekk phénomène bu doy waar. mu phénomène euh, leen ci ay borom xam pour laaj leen ah sama rakk bi demoon na ci benn borom xam-xam mu ne ko daa am lu suul ci kër gi foog nga dindi ko mais dindi na ko mais terewul mu ngi tàkk ba tey. mi ngi tàkk ba tey. waaw léegi daal li ngeen di ñaan mooy euh, ndimbal. ndimbal la ñuy ñaan ku ñu dimbali pour mën ñu ko dindil fii ci kër gi. <laughs>